ñu day wax dëggaane yàlla liñ gis ci social information biñ am daal mooy ni covid bi mu ngi wàññeeku waaw wàññeeku bi nag ah, ah dina am ñuy wax naan defuñ test mu ne waaw defuñ test yu bari de na waaye foog naa ne su nit ñi feebaroon dinañ dem hôpital ku wane symptômes xam naa ñi nga dikkal dinañ koolu 1025 number bi ba pare itam xëy na dee dinañ bari doo xam ndax Covid la oo otherwise waaye dinañ doonu ak feebar yi so mun nañoo safely wax ne daal foog nañ ne wàññeeku na loolu naa soo ko gisee mooy ca gannaaw woon nit ñi dañ fonkoon kii matuwaay yi waaye nag gannaaw yi gis naa ne mu ngi mel ni ñu ngi xala slaak te benn ñu leen di jéem a gën a ñaax. pour ne bu ñu wàññi daal li doon def nañ still jël suñ matuwaay rek waaw nga gis te li nga wax rek Europe am na second surge waaye day wax dëgg ne yàlla ñu Gàmbi de yàlla ak ñoo dimbali kaay yi mu ngi dem down bu baax a baax a baax léeg ñu am ñaar ñetti fan yoo xam ne sax duñu am benn cas ñooñu moom macha allah front line health workers yi ñëpp ñoom dinañ leen war a jox njukkal special daal amuñ morom parce que ñu ngi def seen live bi on the line waaw parce que ñëpp xam nañ Covid ni mu mel so ku dimbale yéen doomu aadama yi nag pour faj leen wala pour sensitise leen ci affaire yi Covid loolu yaakaar naa ne war nañ leen a gërëm bu baax a baax a baax a baax ñoom ñëpp ko ci seen ministre ba ba ci ki ci gën a nekk suuf ak tam non governmental organisations yi nga xam ne NGOs yi nekk ci health sector bi Red Cross xale yu bare ngi dem nekk volunteers di jéem rek pour sensitiser nit ñi jàppale leen pour affaire yi Covid bi dem down daal.